daale daa daale ay di daale walaay doo ko def. bilaay walaay doo ko leen ko man ya war na nga war ku ci mënoon tee nga toog. cooli cooli ab bés la bu dugg yàggee léegi nga war feeñ. ñaari doomu ndey yaa ngi nii jéen Zarko. lambu boole na leen ñaari doomu ndey. bu kenn naagu ku juum daanoo te lambu na leen. Zarko doomu ndeyu jéen kay rey gaynde yaa ngi nii ku kenn naagu ku juum daanoo te boole na leen ñaari doomi ndey ku kenn naagu ku juum daanoo Zarko naa mu boole na leen ñaari doomi ndey ku kenn naagu ku juum daanoo te waaw ñaari doomi ndey man ja war na ci mënul te nga toog cooli cooli ab bees la ma naan bu tukki yàggee léegi njawar feeñ dina bosa Zarkon man ak jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax lamb ji dimanche la incha allah rabbi le 17 Zarkon maa ngi lay bëggee jàng gaal gaal da ngay gaal yaay cinquième personne bi. da ngay bi. da ngay ma de yaay cinquième personne. bilaay da ngay jàngi fee doo jàngal kenn. maa ngi lay ziar. ab lébu la ma. une semaine ab la ma. doo ma jàngal yow ab lébu ma. góor mu yërnu de. waaw ma lay nuyu bu baax a baax di la ziar bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. waaw. waaw Lamine maa ngi lay fay. xam nga di la bëggee. di nuyu ñëpp ñi teew ku jëlé sa trok sa sante suñu papa yi wa CNG ñëpp ménager mbeur yi ibulay di la nuyu yaw di nuyu dégg nga leen dégg nga waaw sama gaay ñu ngi wacc Medina booy saa yi ma jugee ñu jóg bilaay walaay guddeeg bëccëg suba ngoon di la wax lekk leen ba sour naan leen ba mandi te tëdd na law laa la wax yéen waatoo ngeen ak man inshallah ba dimanche dimanche yàggatul ma ngi dugal loolu lépp sama gaay goor góor yi wa dimanche jore ala ñew yeen yéen ma gëna xam ragal ñu fu jëm yalla xam na ko man ragal ma fu mo jëm hésité wu ma te dimanche yagatul di nuyu sam papa bu baaxa baax di nuyu ñep ñi ñuy sétan di nuyu Sénégal bi yëpp goor ak jigen mag ak ndaw di ñaanal ñep jamm waaw di di bëggee ñëpp daal di nuyu Medina yëpp Fass Gueule Tapée Colobane Cité Secna Derklé sita Marine Castor xaar yalla xam nga waaw der Cité Secna Derklé sita Marine ma leen di bëggee xam nga comme mes frères Ousmane simom moom géré na lépp Mm. wàllu décoration yeeg lépp yi lépp rafet na. billet jënd na lépp. billet yi na lépp lépp ay normal de ma xanaa. incha allah le 17 sera fête. gars yi nañ ñëw si kaw feetu si suuf kii moom yaa ma gën a xam. kooku mooy si Jesner business woote lew. man nag xam nga lan jaaxal waa Grand rek ñoo koy jàppale pour mu daan Zarko ay Ousmane Sy yeeg ay yu kenn xamul mais anything. mais keeg Ousmane Sy ànd yow booy dama ne la eh accu ko kaalataako mbi maa mi noppil man nu ma ngaa ko du ma séeréer min ko mi rek. séeréer ay ngañ dama la min komi pullo man doomu pël laa eh, di ci loolu rek ci la ñuy woo l' ensemble zone 7B de Grand Yoff comprendre nga di di wax ni xam nga làmb bi nekk na làmb boo xamante ni bu ñu jox cër la eh, malgré euphorie bi bëri na malgré dégagement bi bëri na show bi bëri na trop mais du ñu du ñu wax te santuñ suñu sponsor sponsor bi ñu jël fa la ñuy njëkk a balaa ñuy woo ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy jàppale ñu woo sponsor bi nga xamante ni xam nga moo tax combat bi am di sant euh, Jador di di di woo borom Jador comprendre nga mu jàpp ci bés bi muy Aziz Ndiaye comprendre nga ñu ngi koy woo ci làmb ji waa Grand soxla nañu ay billets malgré ñun jeunesse Grand Yoff dañu néew lay jàppale ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu bu baax a baax ci làmb ji xam nga euh, yokk ñu doole ñu ñëw taaral stade bi parce que xam nga ni Zarko ñëpp ko bëgg donc ñu ngi lay woo ci làmb ji di woo xam nga njaaba bi Batika waa kuru bi ñëpp sansalaa bi ñëpp gars yi nee nañ nga jënd billet yi loolu biti la fanaan man ñi may woo Lamine ay nit lañ ñoo xam ne man ak ñoom ñooy toog à man ñi may woo samay nit lañu ñoom ñëpp yàlla seede na ni kenn ëpp ma ci xaalis kenn ëpp ma ci xaalis mais dañ ma yéene seen dërëm ak seen ñaar dërëm la bokk ak man ñoom Manu ñoom Zak Mathias ñoom Gandi Gaal ñoom Samba Suuna ñoom guy gi muy toog no à la violence comprendre nga sama gars yi yëpp ñoom sàmmanaar ah ñoom eh, Pape Pape Mbogaan ñoom ñëpp ñooñu dafa nekk ñoo xamante ni <clears throat> man ak ñoom ñooy toog guddeeg bëccëg ñooy yëkkati seen dërëm seen ñaar dërëm di def ci Zarko kon donc dafa jot autorités yi nga xamante ni ñu ngi biir zone 7B de Grand Yoff euh, yi nga xamante ni ñu ngi biir zone 7B de Grand Yoff Zarko buy dem bëri euh, population Grand mooy génn population zone 7B de Grand Yoff mooy génn di leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci làmb ji jëndal askan bi billet ñu ñëw féetal stade bi comprendre nga bëre dimanche incha allah yàlla defal ñu ndam ci kaw jéen kay rek ñu dem féete ko zone 7B bàyyi woo yëpp bàyyiwuma kenn Angel Fall ah combat bi sa combat ñi ñëw ñi ñëwul suñu gars yi nga xamante ni dañoo am défaite ñu ngi leen di encouragé ñu ñëw reprendre at ñi am victoire ñi leen di félicité di woo ñëpp xam nga ci jour yi di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu euh, suñu président écurie Aline Badara Kébé di nuyu ñoom suñu entraîneurs yi ñoom Rone xam nga ñoom Mor ñoom Mod Seck ñoom Mobile di nuyu mbër yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi raay mbooloo di nuyu aussi ñi nga xamante ni dañu bàyyi seen lépp Lamine boobu léegi ñu ngi fii topp Zarko muy waa Grand maa ngi leen di sant bu baax a baax si niñ taxaw xam nga ba ñu ñëw egsi fii ci jàmm di nuyu aussi tamit euh, service d'ordre bi nekk fii nii di leen masawu di leen jégalu ñu xam ne ñun ñëwuñu pour yàq dañu ñëw pour neexal bés. nañ ko comprendre noonu ba jour ji le 17 ñu ñëw ci jàmm dem ci jàmm ñu xam ne waa Grand bu ñu fi ñëwee ñëwuñu pour violence. ñëw ñu pour violence bañ naa ko ba dama ànd ak nit te dafa am lu mu représenté muy mataar guy gi moo représenté non à la violence comprendre nga ñun ñëw du ñu ñëw estaat pour tooñ wala xeex da wala dara déedéet dañu ñëw pour neexal bés bi après ñu dem ñibbi au service d'ordre bu fay nekk jour boobu na xam loolu waa CNG aussi nañ ñu jàppale ci ñu respecté waat nit ñi servi euh, nitu làmb nañ ko gën a joxaat cër parce que dama gis Siteu bu mu ñëwee ci làmb ji man Zarko loolu rek moo tax du ñëw làmb dama gis sit bu mu ñëwee ci làmb ji ay détails yu am comprendre nga du ma dugg si détail parce que xaw ma lan la comprendre nga mais yooyu dafa war a ñàq parce que ñooñu ay modèle lañu ku ci mel ni Siteu Zarko Diène kayre ay modèle lañu bu ñu ñëwee stade dañ leen war a jox cër bi ñu moom comprendre nga man du ma la fende loolu rek moo tax du ma ñëw stade parce que dama xam sama bopp man nit du ma egg fenn fi donc nag pour bañ a am yenn coow yi moo tax damay préféré toog loolu kese la te di retourné ci làmb ji jéem Diène man dama lay jox temps parole nga wax ba doyal loolu danga nga ko fi am force la mais dof doo ma daan. dof dama lay daan <laughs> maa la may moom nga yóbbaale ko. waa xam nga di sant ku ci mel ni Papi Djilabodji.

waa village artisanal di woo ñëpp waaw di woo ñëpp xam nga ñu ñëw jàpp si waaw di ko wool di ko wool papa Bili xam nga waaw Bili Bili waa jeex na maa ngi lay maa ngi lay bëggee di la wax bu ragal loolu papa Bili maa ngi lay bëggee waaw bu baax a baax di la wax bu ragal loolu dimanche ma defaral ko moom mii moom xam na loolu tëddal nga ne incha allah rabbi di bëggee ñëpp di sant ñëpp di nuyu promoteur bi di nuyu sponsor bi aussi waaw IBR di ko bëggee bu baax